saa yaa jël mbéy fukki nii. courant bee tax ñoo yey fay ko courant bee tax saa yaa jël mbéy fukki nii.